coowal projet de loi bu bees bi mooy riir tey ci réew mi nguur gi moo décidé soppi code pénal bi ak code de procédure pénale bi lii raam nag suñu moytuwul ci ñag bi la jëm. ci gàttal président Macky Sall ak Ngouram ñoo introduire ab loi bu bees ngir ñu voter ko biir assemblée nationale boobu loi nak nar a modifier code pénal bi ngir lépp lu jëm ci trouble à l'ordre public ak ay mouvements insurrectionnels ak lu ni mel ñu qualifier ko d'acte de terrorisme passible d'une peine à perpétuité Bo wowe fipu nak dañ lay note mën nañ la tëj ben at ba juróomi at Bo génné ci mbéd bi mën nañ la tëj giiru dundu manam man si Vous nii bu vidéo def résistance 50. nañ ma japp un an ba 5 ans Si je ci mbéd bi tak seul tak seul xonk ak sama drapeau Sénégal ne damay fippu d'accord bu ma ma tej ba fi ba may nak en sécurité de ndax képp ku ñu soupçonné ci ñom ñu acte de terrorisme dinañ épier say moindres faits et gestes. askan sénégalais nous userons de notre droit constitutionnel de résister face à une loi aussi pernicieuse face à une loi aussi dangereuse pour notre démocratie face à une loi aussi dangereuse pour nos vies à nous à vous journalistes et à tous les Sénégalais. Sénégal ñi ngi leen di woo yéen ñëpp ngeen génn ci mbedd mi man maa ne leen génn leen génn leen parce que tout simplement Macky Sall daf fi bëgg a teg loi boo xamante ne yéen internautes yi dootu leen am droit bind ci seen internet yi mais génn leen ngir yàlla xeex seen indépendance. coow li nag tàmbali na depuis démb ci guddi ndax ñenn ci activistes yi ñoom dañoo décidé woon ni dañuy dem fanaan buntu assemblée. ngir fasuñu yéene bàyyi bile loi mu jàll fële ca université Cheikh Anta Diop bi tamit jàmmaarloo yaa nga fay tàng jër. jël suñu lay ceinture yeew suñu bopp si buntu assemblée nationale di wax ne feeg Macky Sall dellu ginnaaw si loi bi xanaa mu tëj ñu yóbbu ñu fu kenn xamul mais duñu dellu ginnaaw tey duñu dellu ginnaaw ëllëg danañ sëlel yëpp nag fekk assemblée nationale xeex bu kenn faraan sa xeex bi si guddi gi la ba ñu xëy suba lii la naan nag ku ñuy jiñ dëmb ngay soccoo yeelu liir ndax pendant que nit yi di ruumandaat yéeneem ngir am troisième mandat lii dafa mel ni rek luy jox dëgg scepticisme bi ñu amoon ci mbir moomu ndax dañoo mel ni kat ñuy bëgg a askan bi tëj seen gémmiñ ngir li ñu bëgg mën a jàll sans effort en tout cas niru na ko lii mooy raam ndax rek benn mbir troisième mandat mandat bii ngay yoot président Macky Sall troisième candidature bii ngay yoot président Macky Sall dina am fu la yóbbu dina la yóbbu ci mandat waye du doon 3e mandat mandat de dépôt nga bour budul bour buur bëgg a jaamoo ñi nga xam ne mosuñu ay jaam jàmmaat loog mom dafa jot 3e mandat warul jar lii même bu fekkee ni sax député de l'opposition yi ñom fas nañu yéné boycotter bi les lois waye ya de quoi avoir peur ndax buñu ñu ni biir assemblée ñi fa ëpp fi président Macky Sall joxogn fa la ñuy xool man député Macky Sall la parce que dañuy wër di wax ñi tassaré wax yi ak ñi déglu mané député boo fi gis rek député diw nga. fii loi bu fi Macky Sall indi xeyna na yéen koy xol man duma ko xol man buñ ne wote rek ma yëkëti sama loxo. li nak suñu moytuul dina mel ni ba Abdoulaye Wade bëggé modifier constitution bi. barki Dembo Ndiaye rek lañu ñu fatali ko 23 juin. et pourtant Macky Sall waru fàttali ci ñu doon bañ boobu notel la bokkon kon on ne lui apprend rien. dinañ taxaw bu loi bi jàllee dinañ continuer chaque jour xex ko wo population yëpp ku ne fa nga nek nga nga nga combattre ko jusqu'au bout moom kay. Ah, nous allons le sortir du palais. allons marcher au palais on va le dégager. Il ah, y' a même pas parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant s'il fait ça.

terrorisme d'Al abondo cela montre nak encore une fois que manifestation du 23 juin yi nga xamanteni ni ba léegi ñu ngi xëccio héritage bi c'est vide de sens parce que amul dara rek lu mu leen jangal ñu leen prêter un peu de bonne foi amana sax yi les restrictions fay wottandiku rek ñi nara infiltrer yoy les marches ngir def nak sudul non noonu nak mënu ñu tenir pour responsable Sa bu manifestation est dégénérée. manifestant yoy nga xamanteni defu ñu lu valoir sen droit le plus absolu waaye askan bi ne duñu tayi de dinañu taxaw ngir wax ko ni duñu ay terroriste xex suñu démocratie moo ñu tax a manifestation constitution droit constitutionnel la te duñu nangu kenn ku ko Nous ñun les nous ñu doon xaar ci seen les nous gouvernement bi moi ñu communiquer largement ci loi bi ni la ñu koy voté ji ngir ñu mën xam à quoi nous en tenir ndax kat rien moom xeeñul neex waxoon nañu ko fi gouvernement Macky Sall nous communication bu transparente ak askan bi te yenn yi manque de respect les rôle. duñu ay valet on est dans une république lii lañu leen indiloon ci xibaaru bis bi fii ci Totem ouais les leen rek duñu suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci Totem Actu waaye tam ci suñu site internet www.totemactu.com.